Sénégal dafa nekkoon ci kilifteefu Mali as Soudan al Gharbi lañ koy wooye waaye saa buñ ne nee as Soudan al Gharbi Soudan dañ ko daan xaaj ñetti xaaj def sudan bi féete penku as Soudan al Sharqi def sudan bi nekk ci digg bi muy as Soudan al awsat defaat as Soudan al gharbi muy Soudan bi féete sow wàllu sowu jand kon buñ ne Sénégal as Soudan al gharbi moo ko yëlifoon loolu li muy tekki mooy ginnaaw bu ñu jógee ci kilifteefu Gana ndax Gana moo yëlifoon ba ci géej gi nu toll géeju Atlantique gi ginnaaw bi bi Mali libéré ci ci Gana état yi ñu taxawaloon muy état islamique ñoom itam ñoo yilif li tàmbalee foofu ba ci géej gi ma senegaal Sénégal mu rëccee ci kilifteefu Mali googu def benn fédération ci ron àtteb njaajaan njaay mi doon buuru Jolof ginnaaw bi buur bi ñu daan wax Mansa Souleymane faatoo ci 1360 Mansa Souleymane Mansa mooy buur ci làkku Mali làkku Mandinke ma ni ginnaaw bu buur boobu ñuy wax Mansa Souleymane faatoo ci 1360 ñu nekkoon ci ay xëccoo ña ko war a doon nag ci xëccoo ak xilaafa ci la njaajaan njaay mi nekkoon buuru jolof occasionné pour libérer Sénégal ma ne depuis boobu ak tey réew mi ak ni sëriñ bi feeñ réew mi dañul ci ay xëccoo jógul ci ay ger waaye xëccoo yépp ak guerre yépp yit ñaari mbir rekk a ko waral muy sàkku ak nguur ak alal ak kilifteef ak alal mu doon coow lu daj kapp ci diggante ñetti kuréel yii fi nekk ñetti kuréel waaye kuréel bu ci ne it di xëccoowaat ci seen biir ndax ay caddoo fi nekkoon ak sëriñi diine ginnaaw bi kole colonialiste yi ñëw tubaab yi ñëw fekk leen fi waaye xëccoo bi mu ngi amoon ci diggante càddo yi ci seen biir xëcco bi am ci diggante tubaab yi ci seen biir xëccoo bi am ci diggante kilifay yi yi ci seen biir waaye noonu la xëccoo bi amee diggante ceddo yi ak tubaab yi noonu la xëcco bi amee diggante ceddo yi ak sëriñi diine yi noonu la bi amee ci diggante sëriñi diina yi ak tubaab yi ba tey mu doon coow lu bari lu daj kapp ci réew mi ci fukkeelu siècle ak juróom benn muy daanaka ginnaaw bu Jolof taxawee ba def fédération bi diir bu gàtt rek ci la tasaat la ko tas la ko xaw a tas la ko jëkk tas mooy benn pël bu ñu wax Kuli Tangila ku li doomi baayam moo tuddoon Tàngila Tàngila moomu euh, moo jëkkoon a sos état état bi euh, jëkk def ay révolte waaye doom ji ñuy wax kuli nag moo jóge ca Fuuta Jalo jaar Gambi euh, jaar Jolof ñëw dem ba Fuuta Tooro mu sos fa nguurug de ñànk de ñànke nguurug de ñànke googu bi ko Kulitangi la sosee foofu yi ba noppi nag sonal lool buuru Jolof ci ay guerre loolu bokk na ci li gën tas fédération Jolof noonu la guerre yi continuer ak xëccoo yi ci diggante ceddo yi waaye xeex bi ci gën a rëy te ëpp ci solo mooy xeex bi nga xam ni Amari Ngoone Sobel moo ko xare woon ak buuru jolof ci 1549 at ak juróomi téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeent te ginnaaw bu guerre boobu jeexee ci la kajoor liibar liibare waale bawal ak ab xaaj ci waalo ba jolof yilifatu leen gannaaw bi la région Sine ak Saalum ñoom itam fàq daldi libar jamono boobu lañ def benn fédération ci diggante Bawol ak Kajoor ak Waalo bépp buur bu doon dameelu Kajoor yaay doon teeñu Bawol doon barag Waalo jamono boobu Kulitang laa di sos état de ñànke ci Fuuta Tooro moo tombe ak tubaab yi di xam Sénégal senegaal ñi ngi ko découvrir ñoom booru 1364 ci cent quarante 1444 ci la portugais yi ñëwee sanc ca Arguin ilu Arguin hollandais yi ñoo topp ci portugais yi kon portugais yi ñooy tubaab yi jëkk wàcc si ci Sénégal wàcc ca Arguin ndax bu ñëwee it tefes gi moo leen di gën a ñor ngir commerce mi leen taxoon a jóg sës ci tefes gi daleen di gën a arrangé ginnaaw bi Hollandais yi ñëw sanc illu gore ci mille wala boog sancuñ ko waaye ñëw nañu occupé ko ci 1688 bañ demee ba 1621 ci lañ sanc gore ñoom Hollandais yi sanc ko wër nag ginnaaw bi anglais yi ñëw ci cent 1651 sanc ca tefasu Gàmbi ga ñoom jaxu Gambie ginnaaw bi la français yi doog a ñëw ci 1659 sanc Saint-Louis waaye nag ñeenti réew yooyu bi ñëwee ba kenn ku ne sanc fenn ci tefes gi dañoo daal di tàmbali ñëw itam di dugg ci ay xëccoo ak i concurrence ngir ilu gore ndax dafa doon il bi nga xam ni moo ci ëppoon solo ci e, ku ko yëlef sam commerce fi gën a mën a jaar ngir jàll Hollande yi kon ñoo ko jëkk a sanc waaye ginnaaw bi portugais yi ñëw xëccoo ko ñoom ba nangu ko ci seen loxo ginnaaw bi anglais yi ñëw xëccoo ko ba nangu ko ci seen loxo ginnaaw bi français yi ñëw nangoo ko ci loxo anglais français yi ñoo ci mujj jot ci seekalu fukkeelu seekal ak juróom-ñaar bi ñuy seddoo tefas gi ci diggante hollande yi ak anglais yi ak portugais ak français yi moo tombe ak commerce um njaam ci géeju atlantique gi commerce um njaam mi indi fi ci réew mi ay jafe-jafe yu bari indi na it caddo yi dox doxiinu doole ci jàpp ay jaam di leen jaay ci njëg gu ñàkk solo ndax dañ leen daan jaay ci ay piis ñu jox ay coupon ci ndima mbaa dara ci përëm mbaa fer mbaa ay takkaay barandaay yu ñàkk sol lañu daan jaay jaam yooyu di leen yabal ci îles France yi nekk Amérique ngir ñu daan liggéey ci tooli suukar yi nekk foofu xëccoo googu ñu doon xëccoo nguur ak alal indi na fi crise économie bu mag ak crise ci wàllu politik ak crise ci wàllu social loolu moo sabab ñiñ daan tudde ay murabitoona murabitoona yi moom lañu ñu mujjoon yàq ba naan maarabu waaye mooy ay sëriñ yu jóge woon ca frontière marok ak moritani bokk ci berber yi seenu bi yëngutu li ko gën gën a sabab mooy kiris crise boobu ci wàllu économie ak wàllu politique ak wàllu social mu mel ni crise bi mi ngi gënoon a baree ci wetu càmmo yu réew mi jëm Mauritanie kon loolu moo sabab Naasiru Diin mi dëkkoon Maroc bokk ci berber yi jóg ker yi benn yëngutu jihaad boo xam ni la ko sabab dëgg-dëgg Eh, lenn li sabab bi taxawal taxawal diine bokk na ca waaye lenn li lijjanti wàllu économie réew mi bokk na ca kon murabitoona yi bi ñuy jóg ngir jihaad yi idées yooyu moo leen puus benn bi mooy lijjanti wàllu économie bi waaye lijjanti wàllu diine ndax lim déclaré mooy njaayum jaam mi bam ko terewut it lam tere mooy ñu di ko jarale ci géej gi di ko génnee ak ni ab jullit it mayeetut ñu jaay mayeetul ñu jaay ko kon yëngatu bi mi ngi tàmbalee ci ndijooru Mauritanie ci frontière Maroc ma mooy sax manis na ne Mauritanie jamono bi ñu toll rek lépp ci Mauritanie la bokk ndax foofu la berber yi dëkke woon daan jànkonte ak kiris économie bu metti ngir li européen yi eh, ñëw wàcc ci Sénégal rawatina bi français yi wàccee ci saint bi ñu occupé saint waaye mu raabitoon yu it seen jihaad jooju ñu am ci tawfeex lool ngir dañoo daldi nangu kajoor dem not waalo not nañu jolof not nañu fuuta tooro fu ci ne ñu wàccee fa ay teg fa ay kilifay diine yuy àtte ci diine ñu wuutu fa caddo ya am na lenn ci nettalikati histoire yi ñu leen di tuddee buuri jullit buuri jullit yi jamono booba mu ne ay buuri jullit lañ fi ñoo fi nekk waaye jamono yi 1674 ci la Nasiruddin faatu ñu rey ko ci xeex bu doxoon digganteem ak xasaniyoon yi ci Mauritanie loolu indi néew dooleeg eh, yëngutub murabitoona yooyu ci mille 1677 nag ci la ñu ko daaneel daaneel gu mat sëkk caddo yi dal di jugaat jëlaat jógaat ñoom itam taxaw temm ci nanguwaat seen nguur waaye européen yi jàppale leen ngir ñoo leen gënoon a arrangé ngir njàppum njaam mi morabito nay doon tere jamono booba seen commerce mépp ci jënd ay jaam ci la sukkandiku ngir wax nañu ni quatre ci commerce um Sénégal eh, commerce um njaam la woon waaye ginnaaw bu xare morabitoon yooyu jàlle it ba tey indi na ay xiif ci réew mi indi na ay jafe-jafe yu bare bare ci wàllu économie ci wàllu politik ndax tax na ñu gën a bàyyi caddu yi gën a bàyyi xel sëriñ si gën leen a jullit yi gën a doxee ak ñoom ci ak noteel gu metti gën a yokk sax njàppum njaam mi nga xam ni moom lañ daan def te sëriñ si jógoon ngir xeex ko rawatina ci jamono yi Lat mi doonoon buuru Kajoor ak euh, Sàmba Gilaaju mi nekkoon gi bu Fuuta jamono yooyu ci la njàppum njàpp mi gën a tar ci la noteelu noteelu gi gën a metti ci jullit yi waaye noonu ginnaaw bu Naasiru Diini faatoo ci la mbooloo gàddaaye fuuta dem fa ñuy wax bundu ku ñuy wax Malick Sy sos foofu benn état islamique mi ngi ko sos ci atum 1690 mbaa du ko sore 1690 ci atum 1695 ci la Latsukaabe yilif Kajoor bi mu yilifee sàkk na pexe pexe mi mu sàkk mooy ñi fi desoon ci sëriñ si te mu ragal ci ñoom ay jafe-jafe ñooñu la fexe ba xëcc leen dugal leen ci biir état am ci ay kilifa yum jël jox leen ab cër ci état bi féetale leen responsabilité ñuy défendre frontière yi waaye li ci metti dir bu gàtt rek sëriñ soos yi dañu dal di jël jikkoy ceddo yi ci wàllu njàppum njaam ak di giir ay alal di yàq-yàq yu bare bari ñu daan leen wooye ay sëriñi làmb ñenn ñi nga xam ni diine fees na leen dell it dañoo bañ benn accord bu ñuy siñante ak ceddo yi ñoom nanguwuñ ko ñu daan leen wooye ay sëriñi jàkk révolution ci Fuuta Jallo waaye sëriñu jàkk yooyu ñor gu leen dina ñor ñuy waxtaan di sàkk pexe loolu dem na ba may leen ñu mën a sos benn état islamique ca Fuuta Jallo loolu mi ngi nekkoon ci mille sept atum mille sept cent vingt cinq gannaaw bu bundu kër-këre ba taxawal état islamique Fuuta Jalon kër-kër yi ba taxawal état islamique am islam am na beneen force bu jogaat feeñ ca Fuuta Tooro loolu mi ngi tolloog atum 1750 waaye nag bi parti islamique bu gañe ci njiitul Souleymane Baal jamono boobu bi mu gañee rek mooy tombee ak faatu Souleymane Baal moom yi jullit yi tànn Abdul Xaadir Kan ngir mu doon kilifa jullit yëpp ci atum 1790 moo tombeek faluk dammeel bañ daan wax Amari Ngoone Ndeela Amari Ngoone Ndeela moom ña ko jiitu woon lañu ñu nangu woon muy am genn mokk gu ñuy mokkal fuuta mbaa nangul gu ñuy nangul kilifa yi diine moom daf ko gàntal bépp yëngutu bu kilifa yi diine daan def buy niru ni dañoo yëlif seen bopp mbaa dañuy xëcc indépendant moom Amari Ngoone Ndeela daf koo bañ daf ko bañ surtout ci njàmbur ba ki fi nekkaloon Abdul Xaadir Kan doon ambassadeur am ñu di ko wax Tafsir Amady Ibra noonu la ko reye Amady Ngoone wax naa ci histoire sëriñ bi ni mooy ki daggaloon maam maaram suufu su Mbàkke waaye la feeñoon ci histoire boobu rek moo feeñaat ci histoire bi ndax loola it li ci histoire wax mooy Mamadou Lamine Sarr mi sancoon caareen jama dafa bokkoon ak maamaaram ak maam moxtaar ndumbe mi sancoon kokki dañoo bokkoon di jànge ca caamil ca tabilëk ci daara yi sëriñ Masamba Caam wax nañu ni Mamadou Lamine Sarr moom yi dafa nekk ak bi ci kajoor muy caarin googi mu sancoon waaye doole jëm fi am te yu bari du ko nangu ci li ceddo yi doxal loolu moo waral ak noonu dox seen diggante ba mu yebal fa nit ku ñëw déclaré dafa ñëw ngir sàkku si xam-xam ba mu fa amee at la ko rendi ñu di ko wax muy benn farakaba bu ñuy wax Maasamba Fabe wax nañu ni sëriñ sëpp jóge njàmbur ak kajoor ak bawal fu ci ne ñëw di jaale si ma Malamine Sarr moom yi ba ñu jaalee ba noppi nag la ñu waxtaan ñoom ci seen biir ni nag dammel bii buñ ko bàyyee muy rend ay sëriñ dana fi def lu ëpp lii kon nañu xeex ak moom ma wax ni booba lañu ñu déclaré jihaad ji daal di yónnee fépp woo sëriñ si booba ma maram ma nga ca mbàkke saañanka ca jolof ba ñu yónnee woolu ko nag moom dafa gàntal wax ni loolu du jihaad ab xeex la te moom buy wàllu jihaad lay wàllu waaye du wàllu ab xeex ala kulli hal dal maamaram am na gis-gis bu mu gisoon ci ger boobu ba tax nanguwuta wuy si bi ñu demee ba damel bi xaré ak sëriñ ci ba gagné len japp ñen ñi ay jaam ñi ci dess mu rey leen mamaaram tok na lu mat at doga joggé jolof ngir ni day jaalé ci mbokk daram ay bi mu ba dugg kadior ci la ci buur bi ni leen ni ko nee leen ko maa ngi koy nuyu buur bi nee leen ko fay naa ko na fi ñëw ba mu jógee di dem di wujji buur ba dañoo wax ni ñëpp dañ caa jàpp ni ko boo demee dana dana ni mu rey woon sa mbokki sëriñ si waaye ma maram ñu leen déedéet mooy bokkuñ ba mu demee la ko laaj lu la taxoon a jóg mu ne ko ñaari mbiram a tax a jóg benn bi mooy damaa ñëw ngir jaale si sama mbokku daara bi bi ci desit dama ñew ngir bëgg sëriñ bo ci japon ben nga man ko mbaayal wala mu man ko jot ndax li du xare bu ñuy wara jappé ab jam diko ko defub ndax xex rek la du jihad ci islam non damel bi rafet lu am xelam ni ko dama bëggul nga dëkk ak man ma def la sama sëriñ nga wootu fi ma min sar waye ma maram xamal ko ni ko man kat mënatuma dëkk fenn fudul kadior fudul ci jolof waye njabot gaangi ni ko ci tan ma bayiko ko fi nga daggal ko suuf si nga dagg fi suuf ma teg ko fi ba dameel bi ba mu tànnee ibrahima ñang mu ne ko kooku dafay sama loxo mënuma tàggu moom waaye sama taawu nga nii muy ahmadu farimata mi mën naa ko fi bàyyi loolu ma waral mu daggal ko suufu su bawal loolu waxoon naa ko ci bi ñuy jàng jaar jaari sëriñ bi waaye ma ne dameel boobu it moo rey tafsir amadi ibrahima moom yi nga xam ne moo fi nekkaloon abdul xaadir kan ci njaamur noonu jullit yi yónnee ci Abdul Xaadir ni ko nag islaam yow képp yaa ko mën a lijjanti yow yaa am doole mën a lijjanti islaam jamono bi ñu toll yaa mën a sowee ci coono yi ñuy dund loolu mooy yóbbu Abdul Xaadir kan ci mu créé benn arm boo xam mat na fanweeri junni nit euh, fanweeri junni yoo xam nag gone yaa ak jigéen ña ca lañ ngir jubloo not si Kajoor loolu mi ngi nekkoon ci 1796 waaye Abdul Xaadir Kan bi mu dajee ak damel boobu ca fa ñuy wax bongo euh, ñu gañe ko ba jàpp ci fu fuutànke yi mbooloo jaay leen jaay leen tubaab yi ñu def leen jaam yóbbu leen ñu jàpp Abdul Xaadir Kan ci jëmmi boppam waaye ginnaaw ba mu ko jàppee prisonnier ab diir la ko tëddee ñu siñeenteeg moom accord yi bu mu fi ñëwati di dal si seen kaw delloowaat ko Fuuta. gañaay loolu ñu gañ Abdul Imaam Abdul Xaadir Kan nag tax na ceddu yi gën a fitar ci kuwaat ci waalo ak ci kajoor gën a doxal seeni mbir waaye noonu la eh, woote islaam taxawe ci ginnaaw bu mu amee ngañaay yooyu mu am dafa taxaw nag jàllatul benn mètre ba nguur yi njot a sas muy bundoo googu ak fuuta jàlloo googu ak fuuta tooro fu ci ne sax ay xëccoo nekk fa ci wàllug xëccoo ak kilifteef ba tax na dara rek islaam doxatu ko noonu la situation yi doxee ba ni Cheikh Omar feeña Cheikh Omar mi ngi gane àdduna ci atum 1796 am na ci e, nettalikat yi riwaayaat yi ñu wax ni ngoon gi mu ganee àdduna mooy ngoon gi xare boobu amoon ca Bongooy ci diggante Abdul Xaadir Kan ak Dameel Amari Ngoone Ndeela at moomu wax nañu ci genn ngoon gi ci la Cheikh Omar gane àdduna nañu ni bàyyam taalibeeb Souleymane Baal la woon gane àdduna ak Cheikh Omar googu moo sabab sax bàyyam demul ci xare boobu fekkiwu fekki jiwu ko waaye ma ne islaam ginnaaw bu mu amee nga ñaayee dafa taxaw ba ni Cheikh Omar feeñe ba déclaré jihaatam ci atum 1852 mel ni at mi muy déclaré jihaat moom itam ci la sëriñ bi ganee àdduna sëriñ bu mag bi sëriñ bi nuy waxtaane at moom yi muy 1852 1853 ci jamono yooyu nett rek ci la sëriñ bi feeñ ci jamono Cheikh Omar doon kilifa diine gu sellal goo xam ni dafa xeex ngir tasaare islaam waaye nag mu jaare ko ci yoonu jihaad jihaad ngir tasaare islaam mu doon nit ku dëgër koo xam ni du deltu gannaaw waaye ci ñetti anam faam ñetti forsu yum jàmmaar lool waaw muy doon na xeex contre jàmmukati xiram yi doon na xeex digganteem ak jullit yi muy xaadir ya nekkoon ca Mali ca Masina ak Tumbuktu waaye noonu la amee woon jafe-jafe ci digganteem ak colonial si muy tubaab bi kon ñetti anam yépp Cheikh Omar dafee jëme woon ay xeexam loolu bokk na ci li sabab eh, ni mu war a jàlle dëgg dëgg dëgg jàlle ko ndax li mu gisoon mooy fii ci soow jant bi li tàmbulee ca Mali jëm soow lépp moom daf dañ fi war a seetal islaam ba mu set wecc lépp lu ci takk ci ay tax-tax da ko war a dindi ak njaamu xëram dafa war a jeex dañ fee war a àtte charia islamique loolu yi moo doon gis-gisu Seex Omar mu doonoon ku taxaw ci tabax ja ay jàkka di tasaare daaray alxuraan ba étaam yaatu woon na ba xaw a daj Sénégal jamono boobu waaye rek ca mujj ga mbokki julitam yooyu te mooy ahmadu seexu bu ñetteel mi nekkoon xalifa cheikh ahmad labbu mi sosoon état islamique ba ca masina ahmadu cheikh moomu ak cheikh ahmad al bakaayi mi doonoon setu cheikh sid muxtaar kunti te nekkoon tumbaxtu ñooñu la amooloon ak juyoo ba ñu gaaw ko ca hamdallah gaw nañ ko fa lu mat juróom-ñeenti weer ginnaaw bi noonu ñu ko gayoon mu xotti mu jaar ci ci seen biir ak doole ba génn ko waaye ginnaaw bi rek ñu topp ko ba ci dëkk bu ñuy wax Goro foofu la ko armo bi toppee ba foofu la shahite ci weeru koor 1280 tolloog février 1864 doomam Ahmad jàllale na sax jihaad ji contre euh, colonialiste yi ab diir moom itam waaye rek euh, jàllut na mu war a jàlle jàlle ko yàlla na yàlla yërëm leen te yokk seeni leer te fay leen aw yiw Maba Jaxu taalibe Cheikh Omar la woon moom itam dafa doon xeex contre ñiy jaamu xiram doon na xeex contre colonialiste yi ba suñ borom mayoon na ko ndimbal mu mën dajale jullit yëpp loolu wax naa ko ci histoire sëriñ bi dajale jullit yëpp euh, ñu fekk ko Saalum Maba ci 1867 la xeex ak séréeri siin yi ñu rey ko booba buur euh, buur siin bañ daan wax Kumba Ndoofeen Juuf moo fa nekkoon loolu kon mooy eh, li am ci wàllu kilifay diine